mbokki internet yu AGT news dal leen ak jàmm ci xibaar na leen ci suñu chaîne bile saa su ne ngeen di am ay xibaar yu wér te fële ca place de la nation waa coalition Yewwi Askan Wi ak waa wàllu Sénégal ñoom ñoo ànd ne daal dañuy dem defi ji ab marche pacifique boo xam ne lañ ca jublu moo di jàmmaarloo ak président Macky Sall wax ak moom nekk daal la nga xam ne moom la fas yéene def ca liste national bu Yewwi Askan Wi fas yéene éliminé Ousmane Sonko ak ay naataangoom duñ ko nangu benn yoon loole moo waral jamono ji ñu toll nii foofee ca place de la nation bëri na ay ndaw yoo nga fa taxaw di xaar yooyu les leaders ngir ñu àndandoo ak ñoom ca marche pacifique ba nga xam ne moom la ñu fas yéene def waaye nag la nga xam ne moom la ñëpp di waxtaanee mooy dispositif sécuritaire ba nga xam ne moom lañ fa déployé ngir mën a garantir la jëm ca wàllum sécurité loole moom moo jaxase xelum ñëpp ndax question bi ñuy laaj mooy que Sénégal ñi ngi nemmeeku insécurité bi nga xam ne mi ngi fi am saa su nekk ñuy dégg ay nit ñoo xam ne dañ leen di faat te dara waralu ko lu dul ñàkk surveillance surveillance bu am solo bu war a am ci yenn koñ yi alors que bu manifestation amee surtout bu fekkee ne opposition bi ñoom ñoo woote ngir wàcc ci mbedd mi ngir mën a ñaxtu lépp loo xam ne dafa naqari population bu Sénégal dañuy gis ab dispositif sécuritaire boo xam ne day taxaw tem ngir opposé wu ci loolu ne daal dañuy garanti lu jëm ci wàllum sécurité doomu aadama yi loole nag moo waral ñu ci bëri di laaj ne daal ndax loolee duñ ko déployer ci gox goxaat pour mën doomu aadama yi ndax soxla nañ ko lool ci Sénégal fi mu toll nii waaye naka la nga xam ne moom moo waral boobule marché bi am ca place de la nation li ko sabab du lenn lu dul la nga xam ne moo ñeel liste yeewi askan wi biñ bëgg invalider ci wàllum titulaire yi ak itam la nga xam ne moom la sénégalais yi di dund jamono ji ñu toll nii ndax kenn umpalewul ne dëkk bi dafa métti lool lépp moo cher essence ak gasoil rek ñi ngi annoncé ne dañu koy yokk ceeb ak dawlin moom ñëpp ñoo bokk benn kàddu bi mooy yuuxandoo ko ne daal mbir mi dafa cher lool lu jëm itam ci yeneen denrée de première nécessité yi kenn umpulewul ne dafa cher lool loole ma waral ñi nga xam ne nag ñoo fare ci opposition bi bokk ci yi Askan Wi ak Wallu Sénégal ñu ne ñoom daal ñu ngi woo képp koo xam ni da nga ni ab sénégalais di dund yooyu le métit ak jafe-jafe ngir nga ñëw ñu amal ab marche foofe ngir xeex lu jëm ci wàllum démocratie waaye itam dund gu métti gi nga xam ne moom la sénégalais yi di dund boole mbokki internet yu AGT news abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar yu wér te wóor. xibaar ci AGT news.